am na solo léegi nag tudd nga fi sànq troisième mandat. Mhm. Euh, mais euh, scandalu Covid bi dégguma la ci. Hmm. Euh, ban ban gis-gis nga ci amee ñu doog a ñëw. man dama yàgg wax ne. waaw bañ dalee tëjee tëjee ba ñu ba ko nawet bi ñëwee. Hmm. ba fi ma toll nii man mosuma koo gëm. yow gëmoo ko man mosuma gëm ne. Hmm. coronavirus am na. ok te mos naa toog benn plateau na leen. bëri na fi imaam yoo xam ne. ak ustaas yoo xam ne. jaay nañ seen lislaam mhm. président de la république ba aw bëy mooy ëpp njëkk ñooñu ëpp état yëgitee ne damay tëj jumaa ji mhm. amuñu benn solution lu ànd ci waaw ñoo ko appuyé ñoo ko mhm. parce que état bu bëggee laal diine day provoqué sànni sms xool réaction yi bu gisee ne la maximum ci gars yi dañoo nafiq mu mu mu dugal loxoom bu gisee ne gars yi kafuñu réewuñ moo ci loxoom ok parce que mel grande mosquée ba léegi tijjeegul de waaw léegi. waaw yëngu ne. képp ku te ku ma sa juma un an ba deux ans. waaw li ma la ne message bu may laajte laaj ko ñu jàng diine. Mhm. ku ma sa tëj sa juma. Mhm. un an. Mhm. ba deux ans. wala tëj ko benn yoon. te bul fàtte ne juma kenn amagut maqaama tëj ko nag. déedéet ndax la yàlla wax. waaye léegi ko tëj deux ans tey rapport bi génnee ne. coronavirus bi. d'ailleurs dañ ko joxoon amul politique la woon dañ doon waaye yow yow mi tëj yow mi tëjoon sa jumaa hmm. lan mooy sa attaque céréale fi ñu toll nii question bu may laaj yi jàng fiq la ah. ba est-ce que doo ko delloo ci india akum faasixun bi naba'in fatabayyanu parce que bi ñu leen waxee dañoo waroon gëstu waaw waaye léegi nag hmm. ku ne ku ne xam ne ne politicien hmm. moom bu di ci alxuraan leen sukkandiku faasix rek nga ko mën a jàppee waaw kon kooku benn effort benn message waxtu jógee ci moom ñëw ci yow nitu diine ko ah. kon daal yaa ngi leen posé question maanaam ñu tëjoon seen jumaa deux ans ndax coronavirus. ndax coronavirus. waaw tey yàlla atte. waaw leeral na kaay kaa mhm. yëpp dañ ko daan yokk. Mhm. amutoon. Mhm. nel benn. benn ñaareel bi. jumaa ji nga tëj yow. te mu wut na la ne yow yow doomu aadama amoo benn maqaama tëj jumaa. yow ci sharia tey bi dëgg wëree lépp ay tappale la woon. lan mooy sa atte gi sharia. sa atte macha te bu fekkee atte bi mi. bi ma jàng man ci xale yi ñëw na. Mhm. ah am na gaa yoo xam ne war nañu war nañoo dem bi xat fex dugg ci diine ji. Hmm? <laughs> ñu war a tuub bari na de. ah laa ilaaha illallaah <laughs> gaa am na ñu yan woon feebar bi de. <laughs> jël ay masque takk seen bakkan ba doo mën a nooy. dem ba naan waa bu ñuy julli sax nañu soree ku nekk taxaw fee. yéen it yàlla mos a salaam jàngal ñu nañu. bu ngeen di julli seen tànk wey yi seen mm-hmm. tànk yu ndaw yi tànk sànq lañu. Mm-hmm. nañ di lalanti tànk ak tànk mbagg ak mbagg. Mm-hmm. ndax bu séparé rek. seetaan dugg dëgg la yow ñu dem ba tubaab yi xam loolu ñoom maîtriser ñu jàng suñu téere bi. xam lépp lu ñu nekk. ñu ne léegi nañ fexe seen diggante yi ñu julli. heure bu ñu taxal julli nag nekk. bu leen joxante léegi yow ba ko xoolee dira corona bi yëpp. képp ku julli. bu moom jegee yaa ngi ko moytu ne est-ce que la bu sojee soj. nga xam ne yaa ngi Mm-hmm. nga ne est-ce que du waa ji léegi saqal ngeen ne julli gi jële fi joxante loxo ji ci jumaa ji saafante gi amoon te loolu mooy jullit jox sa moromu loxo jullit yàlla yàgg naa wax ne képp ku jël sa moromu jullit jox ko loxo mm-hmm. jaayante ak moom teg naa sama loxo ñetteel ko ñu jëlee loolu pendant deux ans ñu jëlee ko fi. kon ñun pendant deux ans. Mm-hmm. ay njabootu iblis lañu buñ ko xamee buñ ko xamul. sëriñ <laughs> Moustapha waxati na de kon boobu deux ans ñi tëj li woon jàkkee ak jumaa yi ak ñi nga xam ne ñoo leen doon euh, appuyer kon boobu Moustapha Dramé nee na njabootu ñoo ñëw ngeen.